di chambre criminelle li nga xamni ne tam wax na ko yoon toppee jëm si diffamation manam wax lu dul deug justement alors euh, euh aussi encore une fois ëpp nak di japp na ni wàllu acharnement la jëm ci euh, beneen euh, li nga xam que modi parti bi jëm ci wàllu wunu mer exactement alors pap ki nga xam nekk moo di Ndiaye tey dinañ daal fa nga xam ne itam mooy zone palais de justice bu nakal jamono ji sax ma nga fa exactement alors interprétation interpellation nak naka nga ko daal di gisee. non c'est c'est normal xam nga tay mëno xey comme li may wax rek. Hmm. c'est-à-dire dafa jeex ci Sénégal ay nit di hmm. taxaw. Hmm. ne di wax ay wax yi nga xam manam day perturber sécurité wu réew mi nee dafa am 19 neuf magistrats yi nga xam ne dañoo maanaam dañoo dañoo setal Ousmane Sonko su su amee comme dañ ko convoquer na dem rek léral bu ko léré parce que mëno nek devant la télé. ay millions de sénégalais euh, non ay millions de sénégalais non source mais nako léral amul amul ki c'est-à-dire. li fi daloon Pape Alé Niang mu wax fi ba mu demee amul lenn mu génne liy prouver lu mu wax loolu dafa war a jeex ci réew mi parce que ay nit mënuñoo toog am connexion bu doy wala nga am une opportunité nekk ci plateau télé ay millions de sénégalais dina seetaan ngay xëy di wax lu la neex loo xam ne sa néeg nga toog sa kaw lal nga inventé ko. mais est-ce que ñu wax ko c'est déjà journaliste. non jàppuñu journaliste jàppuñu journaliste. ñaata journaliste ñoo nek au Sénégal ñu ñu jàpp. aussi exercice de ses fonctions là non déedéet ñaata journaliste ñoo nek fi kii informer juste et vrai xam un journaliste un journaliste il doit informer juste et vrai mais un journaliste ne doit pas être dans la manipulation. mais raar nga dit euh, peut-être ñi nek ci euh, certains groupes de presse ñu daal leen teg loxo.

ay magistrat la tuumal ko nekk sa ligne éditoriale. RTS dafa am ligne éditoriale mooy wane li nga xam ne moo di peut être les bienfaits. du président télévision nationale de l' état. Abdoulaye ba mu fi ñëwee xeex na fi waxoon na fi lu nekk ci RTS ba mu ñëwee RTS kon ne na ligne ligne am Abdou Diouf même chose Senghor. ab Macky Sall ñëw Macky Sall bu demee keneen ku fi ñëwaat tamit. Hmm. RTS noonu lay continuer di liggéey comme ni ko waxee c'est ça ligne éditoriale mais tey ligne éditoriale maanaam tey mën nga ne da ngay génnee li nga xam ne peut-être état defu ko fi problème am nga génnee ko ainsi hmm. mais pas ngay xëy di toog ci plateau télé di wax li nga xam ne du dëgg li nga xam ne amul. donc loolu boo ko defee amul ligne éditoriale bi nga xam ne war nañ laa mën a euh, euh, ndangul loolu noonu. mais est ce que loolu nambal président Macky Sall est ce du doon euh, way si moom diggante Pam Pape Alé Niang ba kii dem tey Pape Ndiaye mu seen ko daal di jàpp exactement. non non déedéet déedéet président Macky Sall yoonam nekku ci président Macky Sall yoonam nekku ci. bu amee pour intervenir bu justice dafay liggéeyam ba pare. peut-être ci lay intervenir waaye léegi nag moom moom mooy sec coñcam. mais bu ma dugal ci carton ay dossiers yu président Macky Sall. teg président Sénégal maa teg sama cooñ. du doon nga taal Sénégal donc tey képp ki nga xam ne tamit doon nga sénégalais war a taal Sénégal aussi nañ la teg cooñ.

maanaam naka na gisee démarche am. maanaam tey. Hmm. mënuñu bu ñu nee dañuy tere dara wala bu leen def lii yow nga wëlbatiku ne yow da nga koy def ba pare bëgg dara du la ci fekk. si naka amul impunité amul affaire de kumba am ndey ak kumba amul ndey fii au Sénégal. Hmm. léppay tolloo tey bu amee une manifestation boo xam ne dañ ko interdire yow nga dem dem fa di joxe ay information yi nga xam ne da ngay inciter à la haine da ngay inciter au désordre. dañ lay teg ci yoon. mais information la. buñ ko defee du information non information. buy yàq information la non information buy yàq. information parce que yow si bëgg na xam. non xew Mbacke. déedéet information bi nga xam ne moo indi désordre bi nga xam ne day nasaxal. jàmm réew mi mais lu moo tax waa France 24 di teg ay guerre di teg la xew euh, si li nga xam ne que moo di euh, euh, guerre yi aussi ak li nga xam ne que moo di yi di teg exactement aussi ay conflits amee mais bëri na bëri na bëri na li fi am 4 Érifique entre autres donc li fi am loo xam ne chaque jour fi à la télé ñu gis ko ay syndicalistes yoo xam ne dañuy xëy grève def lu ñuy def ñu wane leen ma jël leen boo jëlee boo ko jëlee rek synchroniser ko li nga mais quand une manifestation quand quelque chose est interdit préfet non autorisé mais préfet non non non préfet préfet finish nga wax finish mais ñu ne nañu moytu wane mais mais manifestation lan la waa Walfadjri doon war a li nga xam li nga xam li nga xam warna war naa indil un plus-value au Sénégalais amul ay mais mu ngi nii taal mo lacrymogène bi mu ngi ñew à policier bi sëgg na lolu ban ban ban lan la mën dalil Sénégalais bi lu dul jéem a gën peut-être wala merlo ben Sénégalais bi nga xam peut-être mu ngi toogoon nek ci jammam lolu nak on va pas utiliser ces médias pour jéem a taal ma gis nga Walfadjri buñ leen terewaatee genre situation yoy ñu defaat ko man je valide li def. mais une semaine une semaine une semaine une semaine signal une semaine signal une semaine parce que liberté dafa am. liberté vous la liberté. ils ont la liberté. Parce que tous les jours, ils font des, des, émissions. Hmm. Ils invitent des gens, ils ont des Mais si euh, liberté de presse ne veut pas dire anarchie. non non depuis président Macky euh, président de la République. def na mandat bu sept ans ñëwaat bu cinq ans depuis loolu ligne mi ngi fi amul lu ko mës a changé mais dañoo def lu ñu war def ñu am sanction bi nga xam ne à hauteur de li nga xam ne moom la ñu alors dañuy euh, daal di jàll euh, si Sonko na li nga xam ne que moo di euh, nga xam ne itam déposé na ko comme recours fa nga xam ne itam mooy sa cour d' accusation ba mujj nañ ko daal di gànkal ba war a mu daal dem li nga xam ne que moo di cour suprême peut être loolu du la bett ndax ñu bëri nag xalaatoon nañu ko dinañ ko ko daal di bañal. non c'est-à-dire hmm. comme le may wax rek gars yi euh, les juges fi nga xam ne moom la sa plainte hmm. ak ay ak argumentaire am ne ak lii ak lii moo par exemple ma posé plainte hmm. ñoom ñooy apprécier xool ndax lii jar ñu lever li nga xam ne lever wala c'est une décision personnelle de la justice donc kooku yoonu beneen sénégalais nekku ci ñoom ñoo fa Nous c'est des sages yi fa ne jàng droit xam li nga xam ne procédure rek donc bu juge d'instruction bi respecté procédure yi dañuy nangul juge d'instruction bi respecté procédure c'est pas que Ousmane Sonko bind na rek que dafa war a nekk li may wax sànk rek mooy ni moom jàpp na lu bind rek de dëgg lu bind lu dëgg lu wax lu wax lu ku ak ci ku ak ci dafa ci alors euh, euh, jëm si wàllu wunu mel démb gis na coow li nga xam ne itam judd na si digganteeg Doro Gueye ak ki nga xam ne moo di Sidi Ahmed Mbaye si coow li nga xam ne moo di 10 millions ak ay vidéo jëm si Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr euh, ban gis-gis nga am par rapport ak boobu de coow. bon xam nga man c'est-à-dire man genre coow yooyu man c'est des trucs yi nga xam ne sincèrement man je fais pas de commentaire par rapport ak.